bi nee na xam nga lépp wax a ngi lii de war naa ci yàlla ni bu yeggoon kër bu tey ah daañu yëngu ci yàlla ndeysaan léegi tey daal mag hmm? ah. bi maga maga <laughs> yaay na ma bëgg nga wax rek sëriñ bi rek ma ñëw rek mu faj ma rek may ma ko benn taaliba yaa ngi nii ñu ma xoolal ko ci taaliba taaliba yi. xam nga xam nga li ma gis nii yëpp baay ji la. baay ji doon faj. moo répercuté ci nekk ci njaboot bi. allo allo allo bu ñëwee ñu may ko sama taaliba yi bëri nañ fi lool. ndax euh, moom mii. bëgg am na ñaari mag. am na ñaari mag. ki mu lay wax nii. allo. waaw ñëw na ñëw na waaw. ak beneen magam. waaw boo xam ne bii doom yi kii ko takk. Hmm. waaye moom tamit. Hmm. ah tey la gën a jaxasoo. dëgg kon moom papam dafa doon faj. waaw. boo koy faj dafa garaaw nag boo faj. allo. allo. allo. mbokk gis ngeen xale bu jigéen bi. parce que dafa baax mu wax ñi ñi xam après vidéo yi ñun seen waa dëkk yëpp dinañ ko seetaan seen waa kër ñu xam carrément ndekete kii mu doon dund foofu yëpp lii la même jëkkëram dina xam lu mu pousse xam nga yéen rek boo ko xamee amul sens mais ñooñu bu ñu xamee yëpp mm-hmm. dina leen dimbali bu bari di nga xam ne kii moom. moom effectivement bi may ñëw sax maa koy wax sama ah, magam mu góor bi. parce que ñu bëri dañu mën nañu yaakaar ne moom moo bëgg sëy moo bëgg a yàq waaw ah. nest ah, sax na. toll woon loolu ngeen waxoon. woon nañ ca. waaw waaw dèjà gis moo tax baax ndax film bi dèjà yéen lu saa tool ñu jógee lu saa tool xamuñu lu mu demee. Mm-hmm. bu ñu xawee film bi dañuy xam ne kii kat vraiment lu mu doon def yëpp. mën naa ne foog naa ne taalibi moom di ko doyoo. incha allah waaw taalibi. waaw incha allah ko doyoo. waaw mbokk yi dégg ngeen loolu. sang bi ñoo ci neuf heures ak lu teg. ah. neuf sax kon du ma daan tëdd damay continuer dem Dakar noonu après ñëwaat. parce que fii bu ma tëddee fii rek bu baax. mbokk yi gis ngeen loolu. Euh, diine bi dafa garaaw te kii <laughs> fii wax na de a naa fee du wax bu ñëwee fii xam ne ni fii mooy fan <laughs> fii jinne buy rab rab la di dëmm dëmm lu boo ne tëll fii di nga xam ne lépp dëgg la ndax fii kër gi kër bu am barke la kër bu yàlla baaxal la boo fi ñëwee di nga xam ne yaa quelque chose ici suñu borom moo fi defar suñu borom moo wàccee moo wàccee barke fii def fi baatin def fi baatin macha allah léegi ak lan ngeen bëggoon ñu laaj. kañ nga dugg ci xale bi. ba mu amee ñeenti at. maanaam ba mu amee ñeenti at. ok dama bëggoon ñëw ci papam waaw. waaw waaw. waaw papaam dafa daan fekk. ah teel waaw. waaw papaam dafa daan fekk. waaw. xam naa nag mun na am loolu moo def tëri bi waaw ah? hmm. ah, ay doom yu bàyyi lañ xam naa ne loolu moom moo ñëw ci njaboot bi ndax mun naa wax ne ñu jigéen ñi kenn échappé ñu jigéen ñi kenn échappé du ñaari magam moom xëy na moom fi mu egg ñooñu àgg guñ waaye kenn ci gën a mag seeni ñetti yoon ko njëkk a may jarbaatu baay kiñ ci teg sama doomu may la mag boo xam ne bi suñ ñaar lay ñu bokk ndey baay kiñ ci teg sama doomu bopp la man waaye ko mujj jox sama doom ma nga gànd waaye amoo fu une semaine une semaine mu ñib xam naa ñoom la dinaa ko laaj loolu tamit ñàkk mu xam ci dara ki nga xam ne kii mooy magam tamit jama doomu kii lañ ko may waaye fi nekk nii dara nekk daanaka say nekk te xam naa rek dina bi daal laaj laaj mais ni kay ah yàlla baax na daal. papaam dafa doon faj. waaw dafa kay ci ci ci yëngu ci ngi nii. ba mu a ba mu gaañ ko. mu daan dimbali. yaayam xoolal ka rey. nii la. dafa daan faj jàppale nii. waaw dafa daan jàppale nii la. dafa dafa gis faj. papa moom. faj laaj wala. bu laajee bari na ñu dimbali daal. waaw ah. ku mu xool daal xam ne tubaarkaal dafay def sa biir daal. waaw waaw macha allah mbokk yi ngeen faj baax na trop waaye faj tamit doo laaj tamit baaxul parce que boo amee sarax yi nga war génne génne ko tamit baaxul da lay jàpp yow ñaankat bi moo tax sarax dafa am solo parce que ñii dañoo doy waar léegi yow nga ne sa papa moo ko moo lu tax mu rey ko. dafa laal doomam. mu laalee doomam. daa am ku mu doon faj. ku jigéen. ku mu doon faj. kooku jigéen ko doon faj. sama mag moo ko takk. ñoom ñaar ñu yàgg lool. sama gu jinne. waaw sama gu jinne. waaw moo tax ku jigéen kooku ñu yàgg lool benn jour mu feebar ñu indi ko ci paa bi paa bi rey ko paa waaw dafa rey jinne boobu. jinne boobu mu rey moo tax sama papa rey ko moom ma rey doomam dugg si caatam bu jigéen maa ngi toog. mbokk yi dañuy garaaw na xam nga mag yu njëkkee mag yu njëkkee dañoo sati mag yu njëkkee dañoo sati ñu jàpp jinne dóor ko rey ko te amul sens man du rey jinne ma ngi njëkkee dina sadik dañuy jàpp jinne ñu rey ñoom moom sans foofu la ñu def mais jamono ji ñu rey benn jinne ñun dañ lay tuubal dugal la ci diine lislaam di la liggéeyloo ci yow li nga mën jinne bi yaa xam mun nga indi alal ñu boole la ak suñu taaliba bu yorul dara nga may ko alal yaa xam su euh, nit ku am problème police gendarme wala ku am problème tribunal yow loolu nga mën ñu boole la nga ñaanal ko yaa xam ku nekk bitim réew am problème këy ma toog fii yabal la ak yeneen ak yeneen loolu la ñuy parce que ay mbindeef xëy na dañoo réer rek leen di jiñ tuubal leen dugal leen ci diine lislaam mais boo nee da ngay jàpp jinne boobu di ray ray ray loolu baaxul mag yi njëkkee dañoo sadikoon de dañ doon ray ray parce que dañu tàngoon xaal waaye nag Thierno Moule man du ma rey jinne man dama lay tuubal defar la yóbbu la ca yàlla bëggal la bëggloo la yàlla ak yonent bi ak liggéey loolu moo baax mais mag yi njëkkee ndeysaan seen seen maanaam seen génération noonu la waaw léegi daal noonu la demee yàlla na ko yàlla yéram xaare ko daal dangaa danser rek yow ak man damay rey nit damay jaxase damay rey damay jaxase <laughs> loolu laay def mooy sama liggéey. rey ak jaxase. damay rey damay jaxase. jaxase aaya nga ci. wa yii torop laaj ko moom lii sama ginnaaw la. ah moom kay wax na nee na moom xale bi kay day jaar xale bi jaar kay lépp yow la. lépp man la jëkkëram ñoom ñaar avant koy takk dañ doon ànd ànd bu neex ma yàq ko ñu defaraat ñu takk. ma yàq boo ko julliti gis ngeen jinne bi moo ngi wax doole lislaam mu le jinne bu garaaw la il est dangereux il capable tout mais aujourd'hui tuubal naa ko dugg na ci diine lislaam moom jinne bi ndeysaan léegi nag dana bàyyi xale bi xale bi mu daal di delluwaat ci borom këram nekkaat ci néegu sëyam mais avant tout jëkkër ji mbaar yàqaloo ko dara mbaar moo foog ay feebar. jëkkër ji kay instant bi du feebar. kan moo ko teg feebar boobu. man. koy gis ngeen nee na moo teg jëkkër ji feebar bi léegi nag bëgg naa mu rocc feebar bi mu teg jëkkër ji. feebaru xol la yor. feebaru xol xol bi day jàmm yow yaa ko def. man bu ma jàppee jinne lépp loo def ci ñoom lépp loo def ci ñi nga dugg. damay fexe nga jiw loolu nga mun leen may liberté bi mun am jàmm léegi dama bëgg moom jëkkër nga ko ci tey mu denc lépp feebar bu ne ci yaramam bi mu denc moom it mu xam ne Thierno Moule moo dimbali jabaram bi foog mu xam loolu bu baax a baax reconnaître loolu c'est important mu xam ne ne feebar bu mu am ak ñàkk jot jabaram bi jinne bi la Thierno Moule nag téye na jinne bi fii léegi li ñu bëggoon lépp loo ci jëkkër ci lu bon dindi ko jabar ji vraiment ma daal di lay génnee nag nga nekk sama soldat fii soldat bi nga doon bañ nag nga bokk ci soldat yi su ko defee xaw ma lier naa lañ lay takkal xaw ma commando xaw ma lan xaw ma sergent chef su ko ci lier naa Thierno Moule Sow ci yi ma liggéeyal lu ma bëgg nga ne ci lu ma newul ci ne waaw d'accord nga nekk. léegi nag li nga defoon jëkkër ji indi ko yëpp jëkkër ji yëpp loo defoon ci jëkkër jëkkër xale bu jigéen bi dindi ko mu mun a jot jabaram mu mun a am jàmm mu mun a dund bànneexu sëy mu mun a am jàmm à cause de Thierno Moule. ah xale bi dama ko bëgg de. ah mais kii kii da koy bàyyi mu dem yow nga des fii. xale bi dama ko bëgg dama yàgg ci moom. waaw waaye nag tey moom macha allah tey da tàggali ko yow dèjà tuubal naa la yow jullit nga dèjà yow xale bi danga koy bàyyi mu dem yow nga def ci ak man doon sama taalibe di ma liggéeyal nag doon nekk samay waaw góor. d'accord. yaay xale bi dee na. yow nga lan moo war yaay xale bi. xool bi xam nga ci dara xool bi kan moo sabab lool. xamoo ci dara. xamoo ci dara. Mm. gis nga jinne du fen nee na xamoo ci dara waaye papa xam na ne papa moo ko defal bagage gis nga jinne du fen nee yaay xale bi xamu ci dara waaye xam na ne xol moo ko rek ah. mën na nekk loolu. ndax dafa tabaski tabaski. moo togg aji tabaskiyam. togg reer. mu tëdd yeewul. ndeysaan. est-ce que ah. liir boo xam ne ñaar fukki fan la. mooy kan. mooy Fall mooy Mbabu mooy man mii maa ko maa ko maa ko toog. wala yaa. rakkam ci loolu mbokk yi dafa métti. mbokk jullit yi gis ngeen. te bàyyam fu naa ñetti at la gën a dudd gannaaw yaayam. ndeysaan ñetti ñetti at. mbokk yi gis ngeen loolu dafa dawloo yaram kon nag jinne bi macha allah ñu daal koy génnee rek ñu daal di génnee jinne bi macha allah doole lislaam mu le léegi nag li nga bëggoon wax yëpp wax nga ko wala. waaw waaye dama bëgg bis boo ma génnee xale bi di dem. bu leen ko seetaan ndax man maa ko doon jàppale maa ko doon dimbale tey maa ngi nii fas yéene doon sa soldat bu leen ko seetaan bu leen ko dimbali bu demee nan jàppale ko comme man ni ma ko jàppee woon jàppale ko lan may ko ay ñaar aar ko waaw ndax xale bi cat kese la cat kese la xale bi catu kase la catu tax mënu sax toog si machine liggéey day ñëw waaw mhm. mbokk yi di gis ngeen lii kon ñu génnee doolay mule doolay mule mbokk yi mbokk jullit yi mbokk taalib yi jinne bi sama taalibe la nee na mën na xeex nee na mën na xeex mën na leneen kon kii suñu taalibe la bés ni ki tey ñu daal koy génnee mu bàyyi xale bu jigéen bi mu daal di entraîné ci kër gi yow looy dunde ah. man soow ak gerte. ah moom xam naa man man gerte laa de. soo hmm. kay di nga dundee caaf wala xont. gerte bu mu mën a doon. ah c'est la première ma jàpp jëne bu yeeg gerte. gerte xam naa di nga ma dimbali yéen. dina soow. soow. soow laay naan. soow la piir wala soow soow rek. soow bu mu mën a doon. da ngay gis nga yow soow ngay naan ak gerte. kon daal naa la tegal gerte ci côté bi ah. nii dóor. ak soow. boo koy gis ngeen jinne bi macha allah soow ak gerte. wax na mu wax nii. waaw wax na ko lu jiitu fii. wax na ko lu jiitu fii. su ma saan toog bu xiifee dafa yaay yi def soow ak gerte. te bu dee soow ak gerte dafa wut benn place xaw a fu mu toog ndax moo koy lekk xamuñu mu koy lekk yaa ngi toll waaw soow ak gerte waaw waaw li moom balaa mu yegg si fii loolu lay dundee loolu moom du wér mbokku jullit yi mbokku taalibe yi jinne bi soow ak gerte lay dundee macha allah kon ñoo ko gisandoo ñoo ko déggandoo yow daal loolu rek ngay dundee daf lay may kàttan daf lay may doole wala. waaw daf may yokk doole. kenn ci ñoom ku ne ak li ngay dundee soo ak gerte loolu moom macha allah yomb nañu ñii deret la ñuy dundee ñii yàpp maanaam jinne yi dañu bëri ay façon soo ak gerte lay dunde moom bés ni ki tey ci soldaar yi la bokk ci taalibe yi la bokk bu ko defee ñu daal di koy tuubal après day tuubal lañ ko sax ñu daal di koy génne mu bàyyi xale bi ci yaram na wala xale bi dina am doom dina ëmb doom bu góor taaw taaw doom bu góor doom mhm. loo defoon ci biiru xale bi dañ na dañ na ñii bu ñu xasee ba tuub lu mu leen wax dañ koy def bu ñu xasee ba nekk sama taalibe maanaam marché conclu yàlla moo def loolu mu leen tuubalee rek lu mu leen wax dañ koy def waaw bokk bu nit yi nii leer naa macha allah léegi dafa am ñu koy laaj après ñu tuubal c'est bon. ma daal di génne jinne bi benn yoon encore dama am lu ma ko doon laaj yow du du du mu génne ba waaw loolu lislaam boole waaw mbokk jullit ci xale bu jigéen bi pour mun ñaata jinne moo nekk ci yow kese la wala man waaw nee moom kese ci xale bu sama nekk nekk sama taaliba di ma liggéeyal dooleel lislaam mu leen génnal ci xale ba jigéen ñi yàlla tam dooleel lislaam mu leen lépp nag loolu defoon ci biir bi ñu bañ a am doom ak yëpp mu leen dooleel lislaam mu leen génn yàlla tam dooleel lislaam dooleel lislaam dooleel lislaam mu leen dooleel lislaam mu leen dooleel lislaam mu leen dooley lislaam mu lay dooley lislaam mu lay dooley lislaam mu lay dooley lislaam mu lay dooley lislaam mu lay dooley lislaam dooley lislaam gën na ci xale dooley lislaam dooley lislaam dooley lislaam mu lay dina bàyyi génn dooley lislaam mu lay dooley lislaam dooley lislaam dooley lislaam mu lay gën na ci xale dooley lislaam dooleel islam dooleel dooleel islam yàlla dooleel islam dooleel islam dooleel islam dooleel islam islam mu ne dooleel islam mu ne dooleel islam jigéen islam dooleel islam islam dooleel islam islam mu doole islam moo la ko yalti sarga koyra sarga koyra gowaaya kina yalti doole islam moo la jël ci yàlla xale yalti doole islam doole islam doole islam moo koy gis leen dina bàyyi gën yalti doole islam jël ci yàlla xale doole islam doole islam doole islam jël ci yàlla xale yalti yalti yalti sant Diop. yaay sant Diop. ah déet waaye yow waxloo woon loolu de am na tur nga ma waxoon. am na tur nga ma waxoon de. kon xanaa xamuloo kii daal. caméra yi di mu filmé nii. Hmm. lu ma def fii. laaj ko kii laaj ak kii la. laaj ko kii bi lu may def fii. Ah, ah yow de sa jinne bi dañ laa yëngu di la fi ngay rajaxe rek dañ la indee fii moom ñu génnee jinne bi ah. waaw am na amul lu doon topp de. amul lu bi nga nekkee ba mu quatre ans amul lu doon topp. xam nga Ablaye xam nga Ablaye Diop. naa Ablaye Diop. Ablaye Diop Salah. sama jëkkër la. depuis mu la takkee ba léegi ñuy ñaan jot ngeen sékk dara. mais Ablaye bu ma takkee ba tey nekkuma woon foofu. fan nekkoon. est-ce que daw ma woon xaw ma fu ma nekkoon de. da ngaa demoon daal xaw ma foo demoon ba xaw ma lu la yóbbu. sentir seen seen boobu. sa yaram lu ci yëg. tànk yi day métti. da nga koy taalal tuuti bu ko képp taalal ko. est-ce que yàlla ah est-ce que yàlla est-ce que yàlla ah, ah kay dafa ñëwoon sax est-ce que yàlla waaw mbokk yi sant yàlla bu baax. sant Diop ci yonent bi salaa salaam. jaay sant Diop. Ah, léegi nag. ngeen moo ngi wax mbokkam yi. mbir mi nu muy demee. mbokkam yi kontaan nañ. gis ngeen ko. mbir mi nan lay demee. ah as ah, na diggante ak Ablaye ak man nu muy demee. ah déet nañ ko lijjanti fii mu leer nañ. Ah? xool ku muy jël. ah déedéet Ablaye dama bokkoon ak moom suma ay jabar. léegi nag takk na jabar léegi nu ñu def. ah. ba bàyyi nga am nag ah déedéet du sotti nag. du sotti de du sotti de ah. yow sa maam sa maa kana fa bokkoon. ah. ah. maa kana ah, fa bokkoon. sa sant Aida. ah waaw lii lépp ma bokkoon Ablaye nag Ablaye takk la rek ngeen fuy yéen ñaar man ngeen bàyyi. mën naa ne. loolu mën na ne. ah loolu rek nga gis yow. kon boobu baax kon boobu danay wax Ablaye mu bàyyi ma su may jabar may. di ko wax. xam nga jëkkëram jëkkëram euh, suma rak moo ko jur mu ko gën dee bàyyi waaw waaye yaayam ma maanaam maama maanaam maama bu jigéen suñ ñaari day bokk ndey ak baay mu mel ne yaayam suma jarbaat la ndax maag yaayam suñ ñaari day bokk ndey ak baay maag baayam ñu bokk ndey baay waaw mu mel ne kon jëkkëram su ma doom la su ma sët la moo tax moo di ko tooñ jamono bi ñu ko takkee nag dañ ñëw toog bi añ mm-hmm. ma ne ko ah Ablaye léegi naka la def mu ne kenn ku nekk na ci lu moom xalaat ko doon fàttali léegi waaye alhamdulilah sant yàlla bu baax sant yàlla bu baax a baax madame ah, nga ne xam nga loolu ñoo koy gis ngeen ñoo ko gisandoo ngeen ak sant suñu borom la sant yàlla bu baax ci yónnente bi delloowaat lépp suñu borom moo ñu kàttanal moo may kàttan ak doole ak si seede àlla ba ñu mën ko di ko def mu yomb ci ñoom di ko delloowaat lépp àlla moo bi mu màgg gi ak borom kàttan bi mooy lépp ceer na ko allah mu ne ndeysaan waaw gis nga léegi day woo jëkkëram na woo jëkkëram bokk yi gis nga ah na woo jëkkëram bokk yi gis ngeen jëkkëram lay woo xam nga ne ndeysaan suñu borom moo mën suñu borom dafa mën na ko def mais lii fii léegi moom mooy ñaari université ndeysaan waaw dafa nekk ku koo bëgg a woo keneen mbokk yi ñu si yéen ko léegi nag avant. waaw waaw si yéen wàllu yéen ko muy muy woo magam. day woo magam. waaw waaw. mbokk yi ñu si yéen macha allah xale bu jigéen bi delloowaat na sagom suñu borom moo mën. gis ngeen gis mu ne fànn kenn ku mu jeex mu ngi ci balaa dix heures la neuf heures la. allahu akbar ay ñoom Saalay nga ñëw déggante kay man xaw ma fu ma indi nii. pour mu ne ko xaw ma indi fii. ñoo xaw ma fan. la de. Eh, man hmm, si jàmm baax. maa la raw. naa hmm, ngi fi nga nuyu ma alhamdulilah. macha allah. kooku magam gis ngeen moo ngi woo magam. woo na jëkkër jotu ko ndeysaan gis ngeen lii rek suñu borom lépp suñu borom la lépp allah wala. moo ma jagleel lii jox ma lii gis ngeen macha allah tey ñii ñii dañoo amoon jafe-jafe suñu gi. kàlla jëkkër. waaw ah, dëgg la essayé <laughs> maa lay jàng. mais après jëkkër yi dinañ ko woo. après nañu woo jëkkër ji mu wax. Eh, mu expliqué aussi lu mu jot a gis. ak lu mu jot a dégg. mu bokk mu ngi wax ak wax ay mbokkam. doomu ndeyam. doomu ndeyam gën na wax ak ñoom ah. moom la ndeysaan moom daal ku xéewal moom daal ku xéewal ndeysaan ndeysaan ndeysaan moom daal ku xéewal dafa kontaan parce que dafa sóobu ci xale bi ku ne lañ ko yóbbu. allo. waaw. waaw Issa. ah sant alhamdulilah. Ah? Eh, sant alhamdulilah. waaw ah, mu wax tamit wax ay soxlaam. waaw waaw. am ni wax moom teel wax ak Issa. allo. Aliou. waaw isa am mooy liberté. total. ah. suñu borom moo mën a may. yéen jigéen sonn lay ndeysaan dañuy ñëw ci man ba génne jigéen bi man dama ko wax. est-ce que. waaw. anu bàyyi papa. génne seen seeti génne jigéen yi. waaw. pour mu mën a maye parce que ba des à nekkaat nañu delluwaat na. dèjà boo gisee dara nga xam ne jinne bi da koy déformé wu gisal. boo duggee da lay lakk minimiser la yàq sa kanam. waaw a waaw. amiin ah ki kéemaan la Issa fi kéemaan moo fi ne de fii de kéemaan a fi ne man mii sa baay de mosuma gis lu mel nii déedéet mosuma cee teg bët mosuma koo dégg it tamit nag te lii te lii rek man tax ma gëm koo it tamit nag ah da nga yéemu ñëwut moo tax soo fi ñëwoon doo yéemu <laughs> comme que yaay yéemu waxuma la ak ñun <laughs> waaw ah. ah ah loolu du ci dara ah Ablaye la njëkk woo daf amul Seydina Muhammad rasulullah wallahi Diop wallahi incha allah Diop. waaw après naa la woo woo naa si papa après naa la woo ci kanam dama nekk ci biir ay nit su ma génnee naa la woo. waaw incha allah ñëpp. sant Diop. yaay sant Diop. nga boole ñetti sant. Njaay Ndaw Diop. lan nga numéro Ndeye Dara. dañoo kontaan parce que dama mel ni dañ ko tëjoon kaso mu génn prison waaw parce que xamuloon fi mu ne waaw léegi moom maire bi dootu moom bi dootu mu jaar léegi ñoom ñaar nii la ah dëgg la moo nee na maire bi day jaar ne mu jaar seetal ma ko ba bokk yi gis ngeen lii suñu borom moo ko mën suñu borom moo def ci jar moom mooy soo nii. allo kooku ana Njaay mu ko ndey daara na def nga def ci yoon lu xew yaa ngi kii de mbaa du dara am wax ak Njaay. ndeysaan léegi moom pël yi moom pël yi ñoom moom séeréer yi léegi. ma ne pël yi ñoom moom séeréer yi léegi. ah waaye man laal naa ci pël yi de. ah waaw waaw waaye daal pël yi ñoo leen moom léegi. waaw man dama ci laal. waaw d'accord. man sama maam waroon pëlu waroon pëlu waalal di ak jub. déglu la. pël yi kay yàgg na moom séeréer. ah léegi lañ gën a mën. ndax li may def benn séeréer la moom la. moo tax séeréer dañuy nangu. fii bu bu ñëw danaa ne waaw moom la yaay suñu waaw. xam naa la kay na. waaw ñun ñëpp ay jinne ñoo nekkoon. muy ok jërëjëf Faye jazakallahu xayran wa kuffitu sharran yàlla yàlla fay yiw yàlla fay yiw lii moom yàlla rek moo ko mën yàlla rek mooy ci ko mën waaye nag kullu shay'un lahu sababun lépp loo gis ci àdduna am na sabab kon sabab bi mooy Ceerno mu la sow moom mooy sabab bi yàlla yàlla guddal fanam yal yàlla wéral ay cëram yal yàlla yaatal wërsëgam yal na ci yàlla def barke ku ko xaar yàlla na xaddi wax dëgg yàlla mu ngi jihaar de ndax ndaw yi muy delloosi ci seen bopp ba ëllëg ñu mën a jur àdduna waxuma la réew waaye àdduna lii jihaar la delluwaat di seet ñi nga xam ne dañu weddi woon yonente bi mu delluwaat leen ci diine te ñuy ay mbindeef comme ñun ndax minal jinnati wan naa si la yàlla wax kon ay mbindeef yi comme ñun mu delloowaat leen ci diine loolu jihaar la yéen bi bu muy fete jihaar loolu la def Cheikh Omar loolu la def Mabou Diakhou loolu la def ñi fet jihaar yëpp loolu lañ def tuubloo rek comme mu ngi tuubloo di jot bakkani ndaw yoo xam ñooy njëriñu àdduna ëllëg na ko yàlla fay ci àdduna fay ko ko àllaaxira fay ko ko ci ak njabootam ak i bokkam ak képp ku fi teew ak jullit yëpp alhamdulilah jazaakumullaahu xayran wa kafaytu sharran wax dëgg yàlla xol dafa fees fees na torop ndax mbégte wallaay fees na torop ndax mbégte jërëjëfati waay yal na yàlla fay boppam am na liberté jàmm dafa neex sax dégg turam